te xam nga bu ñuy dem euh, ay ay ay ay ay dafa am ay signes je salue au passage sama président ñaanal ko jàmm aussi ñaanal ñëpp jàmm waa réew mi yëpp dafa am ay signes ci loo téye woon mu waaj a dem say loxo je remercie le président Macky Sall parce que lu mu bon bon téye na suñu réew ba xeexu xeexunoo kenn. téye na suñu réew ba amuñu problème ak kenn ci frontières yu ñu dëkkal bien que yaa ngi baax. kon donc bu demee ba ñun ne doonul candidat amul lenn lu ñu war a teg ci kawam lu dul remercier ko. remercier ko mhm. voilà moo gën ñu bari nag ñun li ñuy blâmer di ñu solol mbubb mooy li ñu jëlee jóge jàppale ji président Macky Sall ci liggéeyam. Mhm. parce que loolu il faut ñu leeral ko. mariage système. jarante naa leeral. am nañ ci seen opinion ba pare. waaw non non nu amee sax est-ce que affaiblir wu leen sax waa réew non non non xam nga tey jii président Idrissa Seck bu demee ba Covid ñëw mu dem fekk ci président Macky Sall ñu bari dañ naan poste la ak xaalis mais du post du xaalis parce que ma wax loolu ñun parti politique lañ yor. parti hmm. système parti politique bu mag am am ay. expérience ñu fa am am yëpp mais réew mi gouvernement bi lu muy rëy rëy yëpp ñaari ministre la am cinq députés à l'Assemblée nationale benn député lañ fa am amul kenn fii ci Sénégal ku mën a génne ne Macky Sall nommé na PCA réew mi kenn mbaa nommé a PCA euh, directeur réew mi amul kenn ku ko mën a génne. waaye jox na leen ay postes ministériels. deux. mais bu dee benn non nànk rek. donc bu fekkee ne pour suñu bopp la yaakaar naa ne mënoon nañ jël lu ëpp loolu mais stabilité dal ànd ak rakkam pour stabilité Sénégal moo tax mu fekk ci rakkam. Hmm. waaw parce que loo am ay milliards milliards. bu fekkee dëkk bi amul stable. milliard man de gëm naa ne dina leen porter préjudice. non non non dinañ parce que am na processus boo xam ne moo nu gënoon porter te yàlla def na lu si jàmm. Hmm. muy 2012. bàkka ak màkka waaw boobu gënoon metti am na ñaari juróom benn ajjuma yoo xam ne kuy xutba ñun ngay xutba 2024 du mos 2000 2019 2019 mais teewul ba ñu demee élection yàlla dimbali ñun dag jël na xol yi dugal ko ci jël na Idriss Seck dugal ko ci xolu sénégalais contexte yi du benn de chose xam nga ku ci nekk ni ngay politiquer ni ngay waxee ak ni ngay jëfee loolu la leen nit ñuy xoolee noonu la leen nit ñuy jëlee. parce que xam nga ak nu konka pale la ñuy wuti te pale. ku am expérience lañ koy jox du kër goo xam ne. da nga fay jël stagiaire. yow da ngaa wax ne yeneen candidat comme ñu fi toog. du ma wax ñeneen ñi sax attendez attendez Amadou wax ak Mimi ñoo fi nekk. non dama ni xam nga ni Amadou waa am na expérience. ok am na expérience. d'accord. dama ne palais bi man parti réew mi laa nekk Idriss Seck mooy sama candidat su may wax di ko solal mbubb moom laay solol mbubb mais du ma xalab kenn moo mën a nekk foofu voilà pour le moment ci expérience ci dal ci connaissance ci relation internationale actuellement moom moo fa mën a nekk te ñun moom leen fa bëgg a teg dafa am signe nag mhm. su Dieng dafa wax ñun APR duñ ko xalaat duñ ko defaraat mais élection dafa ay signes. Hmm. si boo ko jëlee ci Abdou Diouf ba muy ba muy perte pouvoir ñaari kàngam ñoo ko bàyyi en deux mille quatre-vingt-dix-neuf quatre-vingt-dix-huit la Djibo Ka fàq. Hmm. quatre-vingt-dix-neuf Moustapha Niass fàq ñu dem deux mille mu daanu ñëw président Abdoulaye Wade jël pouvoir dafa am ay signe léegi yow lan mooy signe présentement. moom mooy wax loolu. mooy ñaari ñaari ministres yi dem ñaari euh, premier ministre yi dem. Bunjon. non non àgguma ci Bunjon damay ñëw ci président Abdoulaye Wade. bu gaaw ma jël de damay bañ temps bi dem. Abdoulaye Wade ñaar ñoo dem. Mhm. Idrissa Seck ak Macky Sall mu perte pouvoir. ok bii tamit c'est la même chose. Ah. ce sera la chose. dañuy perte pouvoir ndax loolu. gis nga gis nga. pouvoir bu yàgg day am usure nan ko nangu. ñoom dañu fay yàgg. 12 ans. ah bon. 12 ans du lu ndaw. Abdou Diouf 12 ans dañu jiite suñu réew. Ah, Abdou Diouf na fi. loolu jamono jële la. léegi c'est révolu jamono jamono boobu doo yore portable jamono boobu amoo internet jamono boobu amoo dara expérience bi xale yi am amuñu ko. Hmm. mentalité bi xale yi am boobu jamono boobu bokkul. loolu foofu nga ko jàppee. voilà yow nga jàpp ne am na ñaari kàngam yu dem. muy ah, wàññi doole kan ak bun jon day wàññi doole maam booy jaaw aussi ah, ak kan ak moom laay wax ni day wàññi seen doole ala kul al day wàññi seen doole ok te bu wàññee seen doole attention mais yow nangu woon waa réew mi tamit seen doole wàññeeku na non non non vous êtes en maa la ko wax réew mi réew mi seen doole wàññeeku na non ci li nga yaakaar ah. yow xam nga fi mu nekk nii da ngay toog ak keneen ak keneen keneen ne réew mi doole mu wàññeeku na parce que am na ñu fa nekkoon génn nañ fa et cetera si toute partie noonu lay dundee. bokkul ak parti d' opposition laa wax bokkul ak parti au pouvoir. ok parti au pouvoir dañuy conserver dañu war a conserver seeni leaders pour mën a maintenir le pouvoir. Mhm. parti opposition nag boo ci nekkee bu nit ñi génnee di nga fexe jëlaat ay. nit ñi ci mooy ñu kàmbal leen président Macky Sall ay na ay boo xam ne ci politique.